buur ba maa bur buur géwél xoolal laal gi mu laal laal waa cosaan loo xam ci lambi cosaan lamb cosaan la buur mu ngoonguy ñëw o xoyaa nuun buur géwél ndaysaan borom petit mbaa ak pikin layaa ndigin mooy wax nga dëgg lamin docteur Macoumba Diouf waaw waaw mooy wax nga dëgg lamin waaw ëma seen xool ni ko gaa wëree lii moo lay wan ne bés bi gars yi fonk nañ ko de buur géwél ah, xool xam nga li séeréer si naan ret nañ lu fee xom fagum lay gin ces ces loolay li xew Babacar gin ces ces maa ngay seen Aliou Seras bu ñu fàttali nag le groupe Futur Média nag du groupe bu ndaw de non ci professionnalisme la ñu ne de waay maa ngi ndeysaan ama bëgg nañ la mbaa yaa ngi am jàmm waa ñu si jàmm bu baax naka yëngu waaw sant yàlla bu baax kay. mel ni fi mu nekk doo ñu ko may rek benn une minute bu ndaw rek. dañ dugg rek xam rek kon dañuy dóor gaa yi commencé nañ. mais daal ama noppi na waaw bu ñu paree après ñu wax. waaw man dama gis benn taxaw bu bees bu mel ni combat bi dafa am lu mu wutee combat bu njëkk ba. waaw mais après nañ ci wax incha allah. waaw waa ji de mu ngi ci biir. waaw waa ñu ngi ci biir allez bisimilah. ñaan dem waaw. am mu wax sànq itam. Ah, lu mu wax. na daal moom ay mbër maag. xam bëreekat baag yooyu xàmmewu ko. waaw waaw dëgg la c'est vrai que ñëwoon daal la jàpp ne mooy ñëwaat te la mu ko defal la koy defal. waaw dinañ waxtaan ak si. ndax maa ngi génn biir TFM. maa ngi génn. amu mel ni tey waxtaan bi neexoon na de. waaw waaw waaw. waaye door nañ. décision bi ma gis nii ci ëmb.

man yoruma dara man maa yóbbu seen fit man maa yóbbu seen fit ay yoole maan lañ du xam nga ma seen maa ko xam Seydou Samba Xoyaan Modou Xarañ loo xam nga ko maa ko xam borom drapeau yi ñoom ñaar defe am na fu ñu jaaroon de yaakaar naa ne 2014 la Babacar 2014 lañ la amoon. 2014 la amoon la amoon ku tëggoon loola Lamine. Aziz Ndiaye. Lamine fu mu ko tëggee woon. Stade Demba Diop. maa ngi fa woon benn àjjuma la Babacar. defe naa lañ abeesu àjjuma wax nga dëgg. maa ngi fa la ñu bëree bëri na defe naa de. 3 minutes moo te teewoon làmb ji jeex. ku ëppoon avertissement. su ma jumul Modou Lo su ma juumul su ma fàttewul. li nga wax am moo ëppoon avertissement. Mm-hmm. waaye moom la yàlla mujj jox ndam la bés boobu. waaw waaw léegi ñu tëggaat seen combat 2019. 28 juillet 2019 Eumeu Sène gëjoon na bëre 28 juillet 2018 digganteem ak Bombardier. muy un an muy un an un an mu nar a wàccaat. Lamine loolu chiffre bu doy na waar de. loolu am ah. am na. ak kan Moustapha Diop. Moustapha Diop moo tëgg bi waaw. borom TNT borom OK Africa. tudde drapeau bi kan. Youssou Ndour. international. star senegal Sénégal. star planétaire sax ngay wax staru monde bi kooku. mais Babacar. waaw kan lañ toogal nii. kii de defe naa ne waa Pikine xam nañ ko waaye sax dama naan waa Sénégal kii defe naa mooy Pape Sarr de Lamine. Pape Sarr borom Pikine. waaw bëgg nañ la. mooy maa leen di ziare. di leen nuyu. Mhm. di rafetlu seen liggéey ci site bi. Mhm. du ci di ci hmm, ma ah. mhm. nuyu site bi. di ci kontaan gis naa seen liggéey. rafet na dafa rafet trop. kon boo ma ñëwee ñëw fii tey dama introsé nii damay kontaan waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Sénégal yëpp di féliciter suñu équipe bi. dama di féliciter ñëpp. di ah, ñaanal ñëpp jàmm mhm. bu équipe bi weesoo. Mhm. équipe équipe ngi fii ëmm seen egsi na mhm. indi na ay otoom xamuñu ne fu mu gaare gis nañ fi daal ñoom Jibson ak ñoom Lanja nag waa Pikine staff bi yëpp ana ëmm fu mu toogee. ëmm mu ngi nee si ginnaaw. ban moo koy nekkum ci ginnaaw yow tamit. non mu ngi nee taxaw mu ngi si ginnaaw non mu ngi si ginnaaw gars yi gars yi kese ñoo fa taxaw quoi suma frère yeeg yooyu. Hmm. ñoo fa taxaw man ma ñëw taxaw fii. Euh, Pape Sarr. Hmm. Eumeu Sène ak Modou Lô dañoo bëri woon de Modou Lô daan ko ñuy ravansaat ma gis tey ngeen ñëw TFM mais ñi ngeen ñëwee 4-4 yi macha allah bëri na lan ngeen da ngeen a bëgg soppi doxalin wala dafa am loo leen di moytu wala lu xew. su nit sàccee sa téléphone. nga jàpp ko. lu mu war a def lu mu war a def téléphone bi du delloo. day sa seen téléphone. soo jàppee sa sàcc. yéen da ngeen sàcc. kan mooy sàcc bi. dama ne la boo jàppee sa sàcc. ma ne ndax da ngeen a jàpp sàcc. damaa bëgg nga déglu ma. waxal soo jàppee sa sàcc. waaw nga fekk li mu yor li mu la sàcc mu téye ko ci loxoom. ci loxoom koy nangu. li mu jël da ko moomul. maanaam Modou Lo maanaam Modou Lo mu leen def moomu ko. da koo moomul. kon da ngaa jàpp ne mu dafa sàcc la mu def. Mm-hmm. xam nga temps bi mu bëri ñun. waaw ñu daan nag mais koo mën. Mm-hmm. doo ko daan ci temps boobu. combat boobu. combat bii. Mm-hmm. man xam ma dañ ma daan dëkk micro rek may tarare di wax rek. mais bi yoon. wax tuuti jëf lu bari la. mais dañoo gis combat bi amoon 2014. amu seen li may faral di laaj rek Babacar. jël na tànk bi ay yooni yoon. yenu ko fa ay yooni yoon mm-hmm. bu ñu eggaatee foofu mm-hmm. est-ce que jël ngeen seen i matukaay loolu moom dama nga laaj ko mbër bi kay eh, laa koy laaj mii na dana seenum téléphone doo xam nga <laughs> parce que li la Lamine laaj lu doy waar la de bëree ba daa metti woon de xam nga ne combat boobu ak bii duñu benn komba boobu ñaata yoon nañ ko rapporté xaw ma sax trois fois loolu Lamine doy na ci lay nga rek loola laxañ combat bi du loolu de daf ma daan ma nangu ko parce que man ñi ma daan dañ koo nangu man daf ma daan man dam koo nangu man Pape Sarr damaa nangu di muur loo daan looy defanteeg moom duma ko daan ko duma daan nga wax dama koy duma daan ko ci ban façon non dama wax si da déggoo loolu kay doy na dama koy duma déggoo comme Modou Lo am na combat combat am na combat am na lu ngeen di moytu ci ci si moom tous. kon su ma moytu woon dara si si si ñoom. Hmm. du mu leen fekk si kaw tribune bi keroog. ruube leen. ruube wu ma leen de. Hmm. ay tooñkat la ñu ñooñu. Papis ak Serigne Ndiaye. Hmm. ñooñu mel ni seen mbër lañuy ñuy àndal rek. àndul ñu seen mbër de. ñoom dañoo ñëw dañoo ñëw foofu fekk may photo ñooñu. soo xoolee lii nii. lii mosoo ko gis ci Eumeu Sène lii nii nga xam ne combat yi am na am na am na fuñ ko teg bu baax. action Babacar. waa kër seetaan nga jàkkaarloo bi démb. Pikine yëpp a génn. Pikine yëpp a génn. combat yu mel nii daf ñoo jig ñun. yàlla dafa def euh, may ñaanal suñu rakk Ama. te ñu doon bëgg Ama am combat Boy Niang am combat Eumeu Sène am combat yëpp ñu réussir ko. yàlla def na ñoom ñaar ñuy bëre Eumeu Sène ak Boy Niang ñoo am bés ci combat boobu te xam naa ni man xam naa ni. Lac de Guiers moom si boppam xam na ne am na combat. mais ba Balla Gaye ci ginnaaw Lac de Guiers de ñaata mbër la ëmb. Mbiis. les deux. Akon. du ma tudd nag Sakka Dior parce que suma xarit la suma nit la bëgguma ko tudd di ko ñaanal fi mu nekk xam nga yàlla na ko yàlla may tan di nuyu suma xarit guy gi ñooñu dum leen. Ah. waaw suma xarit la. lamb suñu bëree ay adversaire mais sama xarit la parce que su ma jarbaat ku bokk ku sama jarbaat këram la këram la nekk dafa faral guy gi sama jarbaat sama jarbaat man sama jarbaat mu ngi foofu moo guy gi ñoo dëkk ay dëkkandoo la ñu loolu du dara lamb ci jeexee jeex na mais guy gi nit ku baax la mais dama ne école de lutte Balla Gaye daf ñoo jig boo bëggee dégg-dëgg école de lutte boobu daf ñoo jig xam nga lan moo tax ma ne école de lutte boobu parce que dafa daw wéeru foofu. kan moo daw wéeru. la de loolu nga yaakaar waaw. daa wéeru wala dafa ànd ak war a àndal. dafa wéeru xam nga lan mooy bi. dafa daw làqu ji. dafa daw làqu. te man leer na ma ni. Sa Thiès ko ëpp jàppale. moo ko ëpp ginnaaw boo ne doomu duuba lees doomu duubal lees rek jeexal na wax boo ñaa ñëw soccoo ko. seen kopp fonde bi booy ñaa ne kopp fonde ngeen booli fonde ngeen yor de. mbana fonde di tibbalaati. xam na bii ban xam nga combat bi nu ma ko tuddee. Ah. yox la jëli ko. yox la jëli ko à ah, suivre Babacar. noonu lay demee <laughs>